Zarko 2 Mourou Sabala ne la lewaatoo ñoom ñaar Zarko 2 Mourou Sabala Mourou Sabala ak Zarko numéro 2 premier combat de la soirée Jax moo ñu foo dimanche 13 février ginnaaw bu ci tikkee jox Jax Liss Ndiago ñi ngay encouragé di félicité Tapha Mbeur Zarko 2 ak Mourou Sabala 2 ak Modou Sabala ba tey ña nga liwaatoo de Drago 2 ak Modou Sabala Drago 2 ak Modou Sabala dara amagut Drago 2 ak Modou Sabala Modou Sabala door na jël na Modou Sabala 2 Modou Sabala dara amagul de Drago 2 Modou Sabala jël na ko takk na ko wéyal na ko waaye jëri Modou Sabala rakku Sabala bi 24 la dëkk ndaanaan la Modou Sabala jël na daan na Modou Sabala daan na Drago 2 win fee yàggul de Drago daan na jël bu rëy